waaw mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey la nga xam ne mooy suratu Ghafir ci aaya dix-sept bi al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala di ko ñaan mu julli ci yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaan it mu nangul ñu daje bi nga xam ne ñu ngi ko daje tey cib néegam ci biir la nga xam ne mooy shahru ramadan tey nekkoon fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent ñuy war a daje ci jéem a leeral lenn ci aayaati borom bi donte ne ñu ngi jéggalu ñi ko fekkee di jéggalu képp ku koy déglu gannaaw ba it xam ne déglu bi dana am jamono boo xam ne nii du neex ndax ab xew-xew boo xam ne dafa sos fii ci jàkke ji mi ngi noonu almuhim kon ñi ngi war a jël aay bi borom bi di wax ni al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat insha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jëloo ñu suñu bind bu jëkk
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم وما كان لهم من الله من واق بارك الله فيكم أعوذ, بال... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني اليوم بسب يوم القيام بيدي tujza kullu nafsin bima kasabat dees na faye bépp bakkan ca la mu faggu woon liggéey ko ci kaw suuf laa zulmal yawm tey day tooñ du am ci kenn inna allaha sari'ul xisaab sa borom yàlla day ku gaaw la te sell nu muy réglé ay jaamam wa anziruhum yawma al azifa xuppal nit ñi ay tiital leen ci bis ba nga xamee ni nii mi ngi jege si isil qulubu la day al xanaajir bis ba nga xamee ne xol yi dana yéeg ba yëg si ca la nga xam ne mooy pudd ya kaasimin ñuy nëbb la nga xam ne mooy seen tiit gaag seen rëccu ga maa li zalimina min xamim du ñeel keroog tooñkat ya benn xarit bu jege wala shafiin yutaa du leen ñeelit kenn aji rammukat bu ñuy topp ak rammoom suñu borom mu ne yaalamu xaainata al ayun moom de xam ne kay wor ci ay bëtam wa ma tuxfi sudur xam na la ñu nëbb ci biir dënn ya wallahu yaqdi bilxaq yàlla mooy atte ci dëgg walazina yad'uuna min duuni ñañuy woo ca duñu yàlla laa yaqduuna bi cheyin ñoom de duñu atte ci dara inna allaha huwa samiu albasir sa borom yàlla mooy aji dégg lépp mooy aji gis lépp awalam yasiru fi l ard ma ndax ñoom doxuñu ci kaw suuf fa yanzuru kayfa kaana aqibatu lazina min qablihim ñu naam fa yanzuru ñu xool kayfa ka kayfa kaana aqibatu nan la nekkoon mujug allazina kaanu min qablihim ñoo xam ne nekkoon nañ jiitu leen kaanu hum ashadd minhum quwwa ñoom day nekkoon nañ di leen gën a tar ci kattan wa asaaran fi l ard di leen ëpp jeexital yu ñu bàyyi ci kaw suuf fa axazahum allahu bi zunubihim teewul yàlla jàppe leen ci seen bakkaar ya wa ma kaana lahum min allahi min waaq te ñeelu leen ci yàlla kenn ku leen koy fegal mi ngi noonu bokk suñu boroom mi ngi ñuy nettali bis boo xam ne mi ngi suñu kanam di bisu yowmal qiyaama bépp doomu aadama bu gëm yàlla war koo ragal mi ngi noonu yastaajulu biha allazina laa yuminuuna biha wallazina amanu mushfiquuna minha ña nga xam ne ñoo gëmul àllaaxira seen yéen niwu ca waaye ab julit fi xelam ne yar ci yowmul xisaab bis àllaaxira loolu yëngal xolam mbokk mooy bis boo xam ni doomu aadama bu nekk li nga liggéeyoon daañ la ko fay mboolem lu baax suñu borom nee na du ca wàññi dara amul lenn lu bon loo xam ni dañ la ko dóoral di la ko tuumaal waaye it mooy bis boo xam ne tooñ amu fa bisu atte la ci maandute keroog la ñuy delloo tooñ yépp loolu it bokk ci li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon a moytuloo ba ko xamal ne yow doomu aadama yaa ngi nekk ci diggante ñaari wàll sa diggante ak sa boroom ak sa diggante ak say moroom sa diggante ak sa boroom bu dee ne rafetal nga ko def nga julli yaag koor yaag yépp waaye sa digganteeg say moroom tooñ nga leen tooñ yu jéggi dayoo daan jël julli ak koor ya yépp fayee ko ña nga xam ne da nga leen a tooñoon moom la yonent bi alayhi salaam doon wax naan al muflis mooy ki nga xam ne lañ ko santoon ci jaamu yàlla def na ko waaye tooñ dana jafe de waaye tooñ gëm doon tooñ gaa yi ndax lii jàpp ngeen dina sotti ala waaw non non ñoo ko tey waaw waaw ala kulli xaal mbokk julit yi man dama gisoon ni li téere borom bi dana xaw a jafe tuuti ñu ñu boole ko ak lii Euh, comme yàlla dogal ne tey ñi ngi war a jël qissa Muusa alayhi salaam ñoom léeg-léeg daanañ arrêté euh, balaa tafsir ba pare su dee arrêté nañ ñu jëlaat suñuy aaya su dee nii arrêté wuñu maa ngi doon rafetlu nañu jël rek qissa yonenti yàlla Muusa mbokk xam leen ni suñu borom yàlla jalla wa ala moom moo dogaloon yónni ay yonentam yonent yooyu mu bokkoon ca yonent yàlla zakariya yonent yàlla yanqub yonent yàlla yanquba moo jur yusuf alayhi salaam suñu borom yàlla bi mu nammi ay kawtéefam fekk ni ñoom yanquba ña ngi nekkoon fa ñu nekkoon ca Sham yàlla dogal na yonent yàlla yusufa ñu ay doomi baayam comploté ba jël ko sànni ko ca teen ba bañ ko sànnee ca teen ba moo am ay commerçant yu fa jaar récupéré ko dem jaay ko biir Égypte kii di premier ministre Égypte ba jënd ko ba mu ko jëndee ay fitna am na seen biir ba fitna yooyee tax ñu jël yonent yàlla Yuusufa dugal ko ca biir kaso ba yàlla mi namm lu ko soob ci ay jaamam ci kum bëgg a teral yónnee buur ba benn gént génte ga kenn mënu koo firi ci dëkk ba suñu borom yàlla comme yuusufa am na kom nekkaloon ca koso ba yuusufa masoon koy firil gént mu ne xaar leen buur man maa xam ku kuy firi gént gi dem yuusufa ca koso ba wax ko ko yuusufa firi gént ga buur bi ne nañ leen ma ko indil yow mi yàgg fekk tafsir yuusufa xam nga ni dama tënk-tënk buur bi ne nañ leen ma ko indil ñu indil ko bi mu ko indee yusufa ñëw waar buur bi wax ko doxalinam mu ne ko tey day man def naa la yow yaay gérer dëkk bi tey mi ngi noonu nga mel ne tey boo demoon lu mel ne Angleterre am na lu ñuy tudde reine bi reine bi mooy buur bi ci kaw rek mais premier ministre bi mooy gérer mu ne ko kon tey yaay gérer dëkk bi yusufa nekk fa comme buur ca la jëli ñoom baayam di yonent yàlla yanquba ak frère am indi leen biir Égypte ñu ñëw biir Égypte nekk fa waa Égypte màggal leen waa Égypte teral leen génération yi di dem génération yi di dem ba mujj ñu am buur yu kaccoor yu ñuy tudde ay firawna yuusufa bi muy ñëw Égypte firawna amul woon buur bi Malik rek lañ ko doon wax buur yu kaccoor yooyu nag jàpp ne ñii ay doxandem lañu donte ne ñoo yoroon diine ji waaye ñu woon diine gannaaw wëlbati ko leen def leen ay jaam def leen ay jaam loolu suñu borom yàlla bi mu nammi ay kawtéefam mu daal di dogal xamal bani Israil ci seeni téere yi ñuy jàng ne day coono yi ngeen di dund dana am benn ci seen doom bu juddoo dana leen musal ci coono yi yépp loolee dem na ba ci pale firawna firawna yëg ko am na ñeneen ñuy wax sax ne firawna daa tëdd guddi génte benn doomu Israil ñëw attaqué ko rey ko bi mu ko waxee buxaaba yi ñu ne ko kon day xam naa ne loolu ñii daañ ma sa révolté ba dal sa kaw firawna ni xawma kañ lay doon waaye du léegi daa ji ne bépp doom bu góor bu judd ci bani israil rayal leen ma ko ñu commencé ku jigéen bu bu ëmb am na sage femme yoo xam ne ñooy recensé bis boo xamee ni nii am nga doom bu dee góor a ñu rendi booleeg inspection générale chaque année kër gu ne dañ fa dugg kuy doom bu góor ñu rendi bi ñu demee ba mujj gaa yi ne firawna waaw mii dañuy dem ba dootuñu am jaam yu góor mu ne waaw kon nu ñuy def année bii la ñu rendi beneen année bi ñu tëb suñu borom yàlla ci kattanam mi def lu ko soob année bi ñu waree tëb ca la Haaruna juddu ca la Haaruna juddu kon moom am na chance kenn du ko rey reyuñu ko année bi ñu waree rendi ca la yàlla juddul yonent yàlla Muusa gis ngeen ca la yàlla juddul yonent yàlla Muusa Haaruna ak Muusa ko nekk ay frère benn at lañ magante loolu it tey jii suñu mbokk jigéen ñi képp koo xam ne da cee neef da ngay jàpp àdduna tukki na waaye mbokk neef du dara ci jigéen Xasan ak Useynu benn at lañ magante loolee ñu bàyyi ci xel bu baax kon année bi ñu waree rendi jot na yonent yàlla Muusa judd na suñu borom yàlla dogal bis bi ñu def inspection générale pour xool ana xale yu góor ñu rendi leen borom bi wax yu ki nga xam ne mooy yaayu Muusa wax yu boobee naka la demee sunna leeraluñ ko ndax ci gént la amee comme ni Ibrahima génte woon wala boog suñu borom yàlla moo ko booleeg koo xam ne nii malaaka la bu wax ak moom almuhim suñu borom mu ne wax yu naa ci yaayu Muusa dafa war boo déggee ba contrôleur yi di ñëw pour xool doom yu góor yi utal benn kees nga jël Muusa dugal ko ci kees gi sànni ko ci dex gi muy la niil jigéen soxna si doon ko gëm boroomam jalla wa ala daa di bi mu déggee gaa yi ñëw ne dañuy war a ñoo tey mu jël yonent yàlla Muusa def ko ci kees sànni ko ci dex gi suñu borom na ko nag bul tiit ñu ngi noonu mooy bul tiit bul tiisu danaa ko delloosi def ko ci yenente yi gis ngeen yàlla ni muy waxee moom rek moo ko waxee mi ngi noonu laa taxaafi wala tahzani inna raaduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin mi ngi noonu ñaar la ko sant dalal xelam ci ñaar loolee soxna si def ko Muusa ngay tëmb vague yi di ko yóbbu vague yi di ko yóbbu mu dem ba ci palais firawna nga xam ngeen firawna bokk na ci li muy bàkkoo ëllëg mooy ndax man da ngeen ma jëndee kii nga xam ne xamul lu muy wax ay ñu ngi noonu laa yakadu yubin xool leen dex yi di daw sama suufa palais bi gis ngeen ala kulli xaal kees gaa ngay ñëw ba am ay mbindaan yoo xam ne mbindaanu soxna firawna lañu seen kees gi ñu ne ah léegi day Muusa la Moussa ci làmmiñu hébreu mooy làkk bi ban Israël ba ñoom xibti yi doon làkk mooy kees ci ndox mi ngi noonu mooy Moussa le day kees la gu nekk ci ndox mi biñ ñii fekk kees gu ñu tëj la ñu ne ah buñ ko ubbi ndax buñ ko ubbee bu dee ne ala la ci nekk mën nañoo jàpp ñun dañ cee jël dara ñoom ñu jël ko yóbbu ko ci soxna Firaw soxna Firaw ne bi mu ubbee kees gi gis ci benn liir boo xam ne bañ juddoo ba tey kenn mësul gis liir bu mel noonu mu gis ko rek àndul ak sagoom moom la borom bi di wax Muusa wa alqaytu alayka mahabbatan minni mu daal di dem yóbbu ki nga xam ne moom mooy jëkkër jow ban di saay saay soo seedi firawna ñu ne ko ay firawna maa ngi lay ñaan kii day bu ko rey qurratu ayunin lii walak mën na nekk luy seral suñu xol mën na am mu mu jëriñ ñu wala ñu jàpp ko sax doom comme ñun amuñu doom ñu jàpp ko ngir doom loolu it di benn passage nga la waay yow jigéen a jullit bàyyi ci xel maa ngi ciy wax ak kenn koo xam ne yàggul dara rek ak a tiis ngay sëy ak say sœur ñuy am ay doom amoo doom ñu dem ba seeni doom di am doom yow amoo doom metti na lool waaye xamal ne suñu borom yàlla mooy dogal lu ko neex ci ay jaamam moo séddale ay jaamam ñii mu jox leen góor ak jigéen ñii mu jox leen jigéen kese ñii mu jox leen góor kese mu ne man maa xam may am kattan ak a bari koo xam ne nii dana am musiba àdduna musiba àllaaxira fekk doom moo ko ko teg mi ngi noonu inspecteur Samb bi sama gannaaw benn góor mas na ñëw wax maag moom sama ennemi bi gën a rëy tey ci kaw suuf mooy sama taw ba góor gis ngeen loolee mi ngi noonu aka bari ñuy nar a dem sawara seen njaboot ñoo leen fa yóbbu mi ngi noonu kon yow muñal xamal ni soxna yi ñu yonent bi alayhi salaam wax ñoo gën ci soxna yi loolee Asiya la mi nekkoon soxna Firawna mi ngi noonu dund na musul am doom gannaaw ba suñu yaay Aisha radiyallahu anha musul am doom mi ngi noonu tey jii ki nga xamee ni nii mooy Maryama benn doom la ko yàlla subhanahu wa taala dénk ca musul sëy loolee kon soxna su baax su ne ko bàyyil ñu jàpp ko mu nekk suñu doom firawna bàyyi ko Muusa kon yaroo ci pale firawna waaw gaa yi ndax yéen ñëpp musu leen dégg suñu borom mooy faalu li ma yurit am déet mooy borom kattan def lu ko neex firawna ay anée ngi nii mi ngi rendi ay liir yu dul jeex ngir liir bii nar a daañal nguuram ba ñu judd non seulement yàlla dogal na judd na waaye firawna moo ko yar ci paleem di ko dundal ba màgg wëlbati ko daañal nguuram gaa yi yàlla mooy def lu ko neex loolu it moo tax ba yow julit bul nekk di tiit bul nekk di ragal lenn lu mën a doon ah suñu borom dogal na téye nañu firawna lan la yàlla dogal comme waxoon na yaayi Muusa defal sama ndigal danaa ko delloosi yàlla xaraamal yonent yàlla Muusa pale bi ay jigéen yu dul jeex ñu ngi fi di nampal te loolu xatta jamono yonent bi alei salatu wasalaam ak mën na arab yi ba suñu jamonoy tey ak bari woon jigéen ñoo xam ne seen dund ñi ngi koy jëlee lu rek nampal doom yi ñu am Muusa kuñ ko jox nanguwul nam kuñ ko jox nanguwul nam ba garde yi jaaxle kii nga xam ne nii mooy soxna Firawna am lu ko metti lool yaayu Muusa nag waxoon na grande sœur Muusa na ko toppal ma ko ba xam fu muy mujj mu topp ko nekk xale bu ndaw topp ko topp ko ba bàyyi dugg ci pale bi bi mu déggee gaa yi am problème mu koy nampal yonent yàlla Muusa mu ne ah man day ñun de ñu ngi dëkk ak benn jigéen boo xam ne day kooku amul benn ku mas a bañ weenam ñu ne ko fu mu nekk mu wax leen yaayam ñu indi yonent yàlla Muusa naka Muusa jël ween bi rek namp namp garde yi daw ñëw ci soxna Firawna ne ko ah gis nañ ko nampal sa doom gis ngeen soxna si ne ndax jig na ñëw fii ci pale bi yaayu Muusa ne ko ay buur teg ma bàyyi rek dama am njaboot gu sew ma toog mu ne ko waa baax na weer wu dee mu jox ko salaire am yaayu Muusa di nampal doomam gis ngeen xoolal mbokk mbir yàlla suñ borom mu ni donte ne tiisoon na ndax bana bi mu ne xaw na sax ne feeñal ne mooy yaayam lawla an rabatna ala qalbiha li takuna min almuminin lu dul ne ñun yàlla ñoo dëgëral xolam te it moo ko ngëm da ngay ñaan yàlla dëgëral ko ndax fitna bu ñëwee mën na yëngal ngëm ñu nit ñu bari bàyyil xel ashabul kahf suñ borom mu ne rabatna ala qulubihim ñun ñoo dëgëral seen xol léegi kon yonent yàlla Muusa ngi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul kuy liggéey sellal liggéey ba ca yàlla tax lu dul day mel ne yaayu Muusa moom day ma ngay nàmpal doomam ba pare ñu koy fay salaire ca mooy yow menuisier bi jox nañ la ab liggéey nga xam ne kër société bi dafa soxla menuisier nit ñi dañoo war a tëdd ci lal kër yi dañ dañ cee war a defal ay ay ay lu ñuy def loolee nga def ko ca yàlla tax yonent bi alayhi salaam nee ne da nga ci am sa tuyaaba ba pare salaire bañ la ci fay nekk ndollant loolu la ñuy wax le maçon le médecin ku mën a doon ci ñiy liggéey ci kaw suuf yonent yàlla Muusa mi ngi noonu bi mu demee demee dem ba dëgër ba nga xam ne nàmp ga pare na ci jabaru firawna jëlaat ko mu yaroo ci kaw bi ci pale bi ñu koy wax doomu firawna doomu firawna mu nekk ci biir pale bi di màgg di màgg di màgg suñu borom nee na Muusa bi mu demee nag ba balaga ashuddahu lu bari ci ñu ne demoon na ba balaga ashudda doomu aadama fi muy jëlee kattanam na doon vingt ans la na doon trente ans la suñu borom yàlla mu ne ca laa ko may atte mi ngi noonu may ko xam-xam wa kazalika najzil muhsinin suñu borom yàlla def Muusa mu nekk ku xam lu baax ku am xikma borom bi nee na lan moo ko waral da doon rafetal moo tax ma def ko te loolu mi ngi ko jokkoon wax ca maamam ji yusuf alayhi salatu wassalaam mi ngi noonu loolu it mu lay wal ñun yow ndawal julit nga la waay xamal ni sa jeunesse bi commencé ko ci ut sa ngërëmal borom commencé ko ci bàyyi toon commencé ko ci dimbali nit ñi heure boo demee ba yegg mag suñu borom dana la fay lim fay ay yonentam mooy dana la may xam-xam te it dana la may teraanga borom bi mu ne kazalika najzil muhsinin ah léegi nag Moussa ñépp ci dëkk bi xam nañoo mbaaxoog Moussa ñépp xam nañ ko donte ne li xew ci dëkk bi mooy ñaari catégorie ñoo fi nekk aristocrate yi mooy firawna ak i notable am ak la nga xamee ni nii moom mooy baadoole yi nga xam ne ñooy bani israil aristocrate yooyee fu ñu fekk bani israil yi noggatu leen ba bis Moussa génn rek di dox gis kenn ci waa xibti yi mi ngi jàpp benn bani israil di dóor bi waa ji sii nii Moussa rek ñoom ñëpp xamoon nañ justice Moussa mu ne ko ay Moussa kay xecc li ma ci waa ji mi ngi may mi ngi may rey Moussa daal di ñëw moom it ak tàng goo xam ne daf koo tàngoon mi ngi noonu sama inspecteur njàmbe na ma baal sun maam yi koo dégg ñu ne njàmbe rek cosaan ba mooy Moussa ndax dañ ne Moussa dafa tàng moo tax ku ñu tudde Moussa dañ ko tudde Moussa njàmme ngiree mu nekk ko am jàmm heureusement ba suñu Moussa bi mu am na jàmm ala kulli xaal Moussa dafa tàngoon mi ngi noonu dafa tàngoon trop te loolu borom bi nettali nañu ko ci xissa yu bari bi mu ñëwee rek laajul laajul laajul daa ñëw rek tëgg waa ji benn korpañ rek waa ji ne jalbet ne dir daa di dee ca suñu borom a sayda ci alquran mooy benn yonent bu yàlla seddeel ne qawiyun amin am déet mi nga noonu dafa bëri woon kattan benn korpañ du dóor waa ji rek waa ji dee rek Moussa ne ha lii day ci pexey seytaane la man maa ngi ñëw fekk ñii laajuma leen attewuma leen dóor naa ki dee na donte ni mi ngi basé wu rek ci général ñii dañuy tooñ yaa ngi dégg mu ne ah yàlla tooñ naa sama bopp de yàlla baal ma suñu borom yàlla wan ko ne baal naa la te loolee ci ay misaal yu yàlla daan jox bani israil heure bu ñu ma saan yàlla nangul leen la nga xamee ne ni moom mooy ak njéggal yàlla da leen ko daal xamal imma ci ay sarax yu yàlla daan jël wala ci yeneen mandarga ala kulli xaal suñu borom mu ne baal na ko mu ne ko ay yàlla bis na ki tey dootuma nekk ci mukk di dimbali koo xam ne ab tooñkat la suñu borom natt ko ci suba ga rek la génnaat ci dëkk bi fekk même waayam ja taxoon mu rey xibte ba ma ngay jàppante kenn naan ko Moussa kay dimbali ma ci kii encore Moussa nag na ko bisimilah jàmm yow mii nekkate yow yow yaay yow yaay say saay yow mii yaay ku bew ki comme nag Moussa nga koy harcelé moom nag mu daal di tiit daal dina ko am Moussa mbaa dag maa bëgg a rey ni nga reyee waa ji démb loolu naka mu ko wax rek xibti ba mu doon xeexal moom roccee ko fekk garde yaa ngi enquête suñ waa ji ku ko rey ku ko rey ku ko rey moom mu roccee ko rek daw ca pale ba ne leen hee Moussa rey waa ji maa doon xeex ak bani Israil mu ne ko ndax da ngaa maa bëgg da ngaa bëgg maa bëgg a rey ni nga reyee waa ji te Moussa sax moom ki muy xeexal la bëggoon a jàpp waaye bew gum bew ak lu yàlla namm pale firaw na nag ne ne nag c'est fini kii moom tey dañuy jóg ci ay mbiram gaa yi woote conseil ne léegi moom dañ koy kii moom dañ koy rey dañ koy rey parce que firaw na moom xamoon ne na du doom moom moom da koo faroon waaye mbokk mbooloo moo gis suñu borom yàlla def na ca ko baax donte ne it mbooloo moo gis yàlla mën na caay def ko bon wala tax yonente bi alayhi salaam amoon ay naafiq waaye ci biir palais firawna am na benn notable bu ca rocceeku avant gars yi di en génne garde yi pour ñu jëli Moussa la daw ñëw suñu borom mu ne yasa daw daw daw bay ci Moussa ne ko ah Moussa gaawal nga génn daw ña ngay réunion ca palais ba décision ba fa génne mooy dañ lay jàpp rey la Moussa alayhi salaam suñu borom yàlla nee na fa la génn di daw daa di fuklu ba génn daw daa di ne ay yàlla musal ma ci noon yi ca loolu it mbokk jullit soo déggee ñu ne jullit yàlla rek la war a ragal loole ñoo ngi ci jublu ci kumpa waaye julit mën ngaa ragal gaynde mën ngaa ragal jaan mën ngaa ragal ay noon yoo xam ne nii dañuy dal sa kaw kon moo tax borom mu ne fa xaraji minha xaifan yataraqa daw génn bi mu génnee ma nga déggoon dëkk bu ñu wax madiyana foofee xam na ay nit ñi baax ña nga fa mu daal di jóge biir Égypte daw ma di jëm Madiyana ci Jordan yi Mustafa dem xamul fu mu féete waaye mu daal di ñaan yàlla ñaan goo xam ne ku jëm ci yoon war koo ñaan yàlla asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil mën na am yàlla jubal ma gën jaa jub ci yoon ngi noonu dem dem dem dem suñu borom dogal mu yegg si juste ca biir Madiyana yegg ci juste ca teenu Madiyana bi mu yegg ci biir teenu Madiyana ñëw gis ay nit ñi ngi root di root di nandal seenug jur root nandal seenug jur mu gis ñaari jigéen ñoom ña nga toog fee ah di fekk seenug jur Musaa dox ba ñëw ci ñoom ndax borom bi nee na kaane minal muhsinin bi mu nekkee Égypte loolu la fa nekk woon fu mu gis ku mu jàpp ne tumuranke nga dana ñëw taxawu la mu ñëw ci ñoom na leen waa yéen lan mooy seen mbir ñu naa ñun kat duñu mën a ànd ak góor ñi di root dañuy bàyyi bañ dem ñun ñu doog a root te loolu it mbokk julit dañu xam ne li ñuy tuddi ixtilaat jaxasoo góor ak jigéen amul benn diine boo xam ne mas na ko nangu loolu muy benn du ñu mën a jaxasoo góor ñi ñaareel bi lu tax ñun ñu génn ñun jigéen ñi mooy suñu bàyyi amul góor suñu bàyyi rek fa nekk ca mag la gis ngeen loolu it danay justifier la nga xam ne moo tax jigéen di mën a génn dem di liggéey bi loolu amee Moussa daal di dem ci gaa yi moom it ànd ak ñoom jël seen baag dem ci teen bi di root di leen indil root di leen indil ñoom ñu daal di gaaw a nandal seenu jur dem ni bi biñ demee ni bi Moussa alayhi salaam dëkk bi xamu fi kenn xamu fi kenn kenn kenn soo demoon ci bani Israël lu ne lañ ciy nettali masalan yéen xale yi daan seetaan cinéma ana benn film bu ñu tudd les dix commandements da ngay gis ni Moussa alayhi salaam bi mu jógee Égypte jëm Madiyana coono bi ka dal ci yoon bi kenn mun la ko wax muusu ndox bi mu yoroon dem na ba koy nal amul lu mu lekk sonn mi ngi noonu ca lañ dem ci benn taatu garab rek daal di toog ah rabbi inni lima anzalta ilayya min min xayrin faqir yàlla da tey loo ma yónnee rek aajo naa ko de mooy aajoo naa ko ca mbokk yu niñ ci noonu lañ meloon ak seen borom ah borom bi jalla wa ala bi mu dogalee xecc li muusa ñii dañoo dellu ci kër ga seen bàyyi ñu leen waaye yéen teel ngeen ni bisi di ñu ne ko ah bàyyi di dañu faa dajeeg benn doxandéem bu baax moo dem ca teen ba rootal ñu moo tax ñu teel a ñëw bàyyi bi ñu leen déedéet kooku dem leen ngeen woo ko kooku il faut ma ma ma fay ko dara suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ñuy nettali Moussa ngi toog ci garab gi mi ngi xiif mi ngi mar mi ngi tumuranke xamu fi kenn ca mooy ki gën ci kaw suuf yow ndawal julit bàyyi xel loolu ndawal julit bàyyi xel loolu léeg-léeg nga nekk su chômage xëy su ba dox fu ne nga dugg fa mën na am doo añ mën na am gerte caaf ngay añee ca mën na am dëkk bi yaay fi gën wallahi mën na am dëkk bi yaay fi gën ndakaaru gi mën na am ki fi gën mi ngi biir prison biir biir prison te it suñu mbokk Ibrahima aan boobu nettali na ma mu ne ma imam prison moom def na yaat prison xam nga moom lañ tuumaaloon mag Alioune Badara Ndaw mu ne gis naa biir kaso ay nit ñoo xam ne niñ mel ci jaamu yàlla xoomoo ne ñi am nañ ci kaw suuf kon yow ndawal julli mel noonu ki gën ci kaw suuf ki ba suuf yépp jeex mi ngi tumuranke toot taatu garab amul kër gu mu dugg amul lekk lu mu lekk rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir yàlla loo ma yónnee tey aajoo naa ko soxna si ñëw doomu ka nekk ca Madiyana léeg-léeg ay mu fassiru ne ne yonent yàlla Shuayb la waaye la gën a not du Shuayb alayhi salaam góor gu baax la woon gu amoon diine xale baa ngi ñëw suñu borom dañuy nettali comportement xale yi jamono bi ñuy rooti ñu ne ñun mënuñoo jaxasoo góor ñi ndax ah ay jigéen lañu muy benn bi muy ñëw di woo si Moussa suñu borom mu ne jaa'athu ihdahunna tamshi alal istihya kenn nit ñi mën koy diggal mi nga dox ci kaw kersa suñu borom mu ne waxul sax daa ànd ak kersa mais mi ngi dox ci kaw kersa xale bu jigéen bi ngiree mu jàkkaarloog Moussa di wax ak moom tànk yaa ngi laxasoo mi ngi noonu bi mu ñëwee ci Moussa lan la ko wax sama bàyyi de nee na nga ñëw mu fay la li ñu rootal jeex na inna abi yaduwuka li yajziyaka ajrata ma sa- ajra ma saqayta lana loolu ñu andi di dem boo demee ci yenn téere yi wallahu subhanahu wa taala alam soxna si moo jiitu di dem waaye léeg-léeg ngelaw bi ëf mëlfa bi mu yoroon lenn ci awra di feeñ Musa alayhi salaam ne ko soxna si mu ne xaaral ma jiitu nga may wax fi may jaar bañ yegg ci kër ga ñu ne loolu moo tax soxna si seede ak maandu teem gis ngeen léegi ñu ñëw ci kër gi bi ñëwee mu fekk fa góor gi góor gi ne ko waa yow luy sa mbir mu necc di ko fi mu jaar fépp man maa ngi bokk ci famille ay yonent ñoon ñi- ñoo nekk Égypte Égypte buuru firaw na ñëpp xam nañ ko wax ko daal fi mu jaar ba yegg si فلما قص عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين mu ne ko sa tiitaange na yem tey fii firaw na ko man diwu ko léegi toogal to- to- toogal fii bi loolu amee ki nga xamee ne moo ko woosi woon daa dina ko ay papa kii te ngaa naxanteeg moom mu toog ci kër gi xam naa ne moom faana Moussa gis ngeen te ngaa naxanteeg moom mu toog ci kër gi ndax kat ki gën ci ngay jël mu lay sàmmal yàlla jël bàyyi jël ko mu sàmmal ñu jur gi ki gën ci kiy sàmm mooy borom doole ca maandu ñu ne soxna si lu tax mu xam loolu mooy moom gis na Moussa bi muy root ak ña nekkoon ca teen ba la Moussa doon def musuñu gis góor gu koy def muy benn deuxièmement bi ñu ñëw ci yoon yi Moussa dina ko na nga dem sama gannaaw di ma woon fi yoon bi jaar kon mu xam ne kii am na kattan te it kii maandu la xawiyun amin léegi góor góor gi daal di woo Moussa da ko waaw Moussa ndax doo toog fii sàmmal ma sama jur su ko defee sama doom yi jigéen yi nga tànn ci ku la neex ma may la ko léegi nag nga sàmmal ma juróom-ñetti at muy can kenn ci ñoom su dee da nga ko mottali fukk loolee sax mbaax la yaa ngi dégg premièrement góor gi waxu ko kaay ma may la sama doom bu jigéen bi waaye da koo defloo choix ñaari ngi ni tànnal ko la neex mbokk yàlla moo ñu nattoo ñun doomu aadama gis nga li nga tànn doo ko yem ak li nga tànnul am déet ñu ngi noonu amoon benn góor gu sa doxo la gën dëkkaloon mu ne ah sama awa bi sama bokk ma ko may rek yaa ngi dégg waaye sama ñaareel bi ma tànn ah boo ko gisee dégg nga loolu mi ngi noonu mooy doomu aadama lañ bindaloon yow sëñ Thiam nga demoon HLM jël fa tissu bi jar cent mille ñëw na sa soxna tissu bi maa la ko jëndal nga joxoon ko cinquante mille mu jënd li boppam moo ko ko gënal am déet gis ngeen ala kulli xaal choix la tànnal loolu it muy wane ne mbokk sëy dis ci force doomu aadama tànnal ku la ci neex ma may la ko bi mu tànnee mu may ko ca it la ka la la tax góor gi ne ko tànnal li wóor mooy laaj na soxna si ndax bëgg na am bëggul am déet loolu la la xel di nangu mu ne ko nag léegi juróom-ñetti at yi mooy can gi loolu it muy ndaw yi ñu bàyyi ci xel léeg-léeg da ngay gis ñu jàpp ne waaw mais can yi nangam jamono yonente bi alayhi salaam maye na ci jaaro or ne non maye na ci ay weñ weñ gu- jaaro weñ maye na ci ay dàll maye na ci nangam maye na ci nangam waaw gaa yi Moussa mi yàlla wax ak canam juróom-ñetti at la sàmm léegi bu ñu doon xool SMIC bi mooy euh, salaire bi gën a néew tey ci Sénégal tey même boo jàppoon tey ñu ne masalan cinquante mille par mois cinquante mille par mois du année bi six cent mille la waaw six cent mille déjà dégg nga boo ko multiplier par dix ñaata lay dem ba du dégg ay cinq millions ay six millions ala kulli xaal mbokk kon can euh, nekkul ci lu bari wala lu néew can mooy la nga xam ne yomb na ca kañ koy laaj ngir yàlla barkeel ko bañ ko caa sonal moo tax bi loolu ami euh, bokk na lu ko goro bi wax la urid an ashuqa alayka duma la sonal te loolu it képp kuy may sa maye sa doom nga la waay kan koy may bu ko sonal mi nga doon la waa ji nettali sëñ Caam ba mu demee da bëgg a takk soxna sa góor gi ne ko ah man day xam naa kii dama la waxtaan ak bàjjen yi rek luñ lu ñuy wax rek après moom bu ñëwee mee la bi ñëwee bàjjen bi na waaw da nga ko jëndal lii da nga ko jënd mujj waa ji na di pëcc bi ci bi ci rangoon yi sut ba bëgg na soxna si ci dixième bi amu ko ala kulli xaal mbokk loolu ëpp naa def laa uridu an ashuqa alayk bëgguma laa sonal seetal li nga man bu la neex juróom-ñetti at yi daal farataal naa ko ci yow soo ko mottalee ba muy fukk loolu sa ngeneel la Moussa na ko waaw d'accord kon ñaari digg bu ma ci def kenn du mënoon ak man huit ans yi su ma ko defee su ma neexee dem deux ans yi su ma tegee sama mbaax la loolu it yàllaa ngi lay net jàngal yow it sañ comme mën a doon sooy teg ko soxna soo ñëwee ñu ne la laaju ñu la lu dul cent mille boo joxee cent mille bul yem ci cent mille waaye dollu ci leneen am déet gis ngeen moom la borom bi di wax naan wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min baadil farida amu leen benn ngant ci loo xam ne da ngeen ci nekk di ca gërëmante gannaaw farata ba te doomu aadama dafa fonk loolu doomu aadama dafa fonk loo xam ne nii du waref ci moom bu ñu laajoon cinq cent mille un million joxe nga ko dañ naan boo lii can gi la ñoo la ko laaj mais nag après loolu nga ñëw fekk baay bi jël cinquante mille roof ko jël kii roox ko loolu la ñu tuddee bayu ndey ak bayu baay ak bayu tànk yi nijaay ak yooyu yëpp moom pour ñëpp kontaan rek ah Moussa nekk foofu nekk ci kër ga nekk ca kër ga di fa sàmm di fa sàmm ba jeexal ajal ba suñu borom yàlla ngiree ëllëgi ki si biir tamit bañ nit ki bañ am ay coono moo tax daf ne rek ajal ban ajal la ndax juróom-ñetti at yàlla wala fukki at yàlla la ëpp ci li ñuy jot ci sunna ak téere bani israil may Moussa def na fa dix ans def na fa dix ans di sàmm loolu it mu lay jàngal mbokk ki gën ci doomu aadama yi ci jamonoom la moo tax tax may wax ki gën ci doomu aadama yi génn na këram kër ay way juram gisul ndeyam gisul ay frère am pendant dix ans tumurank ko ci bitim réew gis ngeen tumurank ko bitim réew pendant dix ans léegi nag mu daal di ne góor gi dëgg dëgg dëgg dama namm sama waa kër dama bëggoon ni bi Égypte góor gi na ko ah am nga ci droit Moussa ci la jóge ànd ak soxnaam di dem loolu it bala ñuy jàll mbokk képp ku takk soxna am nga droit yóbbu ko fu la neex lu dul ne dañ koo chartoo woon ci sëy ba dañ ko chartoo woon ne ah dañ koy takk de yow ab guinéen nga ah danga la may sama doom waaye sama doom du sëy Guinée de sama doom du sëy Mali de sama doom du sëy Fuuta de loolu am nga ci droit mais bu dee loolu amul chartoo wuñ ko góor fu mu nekk fu la yóbbu jabaram lu dul ne mu indi lor gu biir ci attekat yi xam ni soxna si bu demee fee dafay loroo su boobaa loolu moom beneen atte la bokk na it lu bëri da ngeen di gis ay loi yu bëri ci loi adduna bi ay affaire yu crime ak yu demee noonu bu ci am 10 ans dañ koy classé kon Moussa it jàpp na ne daal comme 10 ans am na xanaa daal la ma defoon moom fàtte nañ ko ah ci la jógee Madiana jëm Égypte di dem ba ci yoon bi yàlla indi beneen mbir mi ngi nekk jamono bis boo xam ne sedd tar na lool yàlla réeral yonent yàlla Moussa gis ngeen yàlla réeral yonent yàlla Moussa ci xikmaam keroog bi muy jóge Égypte ñëw Madina ñaan na yàlla jubal ko ñëw na direct sans réer tey nag mi ngi nibbiwaat dem na ba ci guddi gi Moussa réer yoon bi complètement booba yàlla na mën a mbir yàlla won ko benn safara buy tàkk mu ne njabootam gi toog leen safara bi su ma fa demee danaa fa mën a jëlee xabaar pour fan lu yoon bi nekk wala ma jël fa loo xam ne danaa ko mën a taal ñun man cee jaaru bàyyi leen xel mbokk di leen ki gën ci doomu aadama yi tumuranke ci kaw suuf mook soxnaam amuñu tant amuñu lal sedd baa ngi leen di jàpp ñi ngi ne siiwe am lu ñu jaaroo xoolal yow tey tukki yi ngay tukki tey ngay toilette ba jekk jaaxaan sa oto wala jaaxaan sa avion wala jaaxaan dem fu la neex te mooy kon yàlla def nañuy buur ngalawaay nañu sant yàlla ci loolu ca la Moussa alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee nag ci lam jàppoon ne safara la mu gis na ak kay ak garab la guy takk waaye xob yi ñu ngi continuer verte Moussa jaaxle lool ba mujj rek mu dégg baat bu ko woo ne ko yaa Moussa baat boobu muy baatu rabbul alamin boo ko xam ngeen loolu dana yéeme lool gis ngeen na ko Moussa man day may sa boroom ana rabbuk faxla na alayka innaka bil waadi al muqaddasi tuwa min mi ngi noonu gannaa ba mu ne ko fastami li ma yuuxa mooy Moussa na nga ñëw jox cër place bi nga toog bi nga nekk faxla na alayka lu tax yàlla ne ko sumil say dàll loolu yàlla moo xam am na ñu ne dàll ya dafa nekkoon dàlli sobe donte ne ne amuñu ci tegtal ala kulli xaal bani israil ñoom heure buñ masaan di daje seen borom ci julli dañ daan sumi seeni dal amma ñun sunu sharia yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax naan waa bani israil daaw ñu jullee dal wuute leen ak yéen yéen jullee leen ak seeni dal boo nekkee ci place boo xam ne mën nga faa jullee dal jullee dal ya gën sumi dal ya loolu moo tax léeg-léeg ñu jullee néew ñu ne sumi leen seeni dal loolu déedéet jullee néew ajul sumi dal bu la wóoree ne benn sobe amu ci aajul sumi dal donte de nag léeg-léeg it xam texte yi dégg texte yi moo ko gën yaa ngi dégg da ngay gis ne gis naa ci dégg naa ci benn histoire ci yëmbal dégg naa ci benn histoire ci sunu mbokk Cheikh Ousmane Gallaajo benn jeune ñëw ak dàllam rek dàllam dugg ci biir jàkka ji ñu wax mu ne lii sunna la li ko wax sëñ bi booba da la taxoon ñuy wax amul woon ay moquette nag sëñ bi su ñëwee fekk ñu la ay moquette nga ñëw fi ak say dàll ne da nga koy jullee ci kaw moquette yi ça pose problème amma bu doon jàkk yi nga xam ne kenn dëru ko su boobaa yonent bi sam nee na boo ñëwee xoolal gannaaw dàll yi bu ci amee lu ci taq jarul uti ndox de fompal ci suuf si rek bu setee duggal julleeg moom su dee dara taqul dugal duggal julleeg moom amma sharia bani israil mu ne ko Moussa simil dàll yi mooy li ñuy tuddee adabul makan mooy place boo nekk da nga koo war a jox cër te it loolu rawatina ñi nga xam ne dañuy nekk ci jàkka heure boo demee jàkka war nga bàyyi xel bañ a saltel jàkka ja bàyyi xel bañ a perturbe ca jàkka ja gannaaw ba suñu borom mu ne ko fastami lima yuha mooy li ñuy tuddee adabul hadis mooy teggiinu déglu ay wax ca falilahi alhamdu jazakumullahu xayra ni ngeen nekk yéen ñëpp di déglu kenn nekkul du ngur ngur gauche droite loolu mooy li war moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne imam buy xutba ka nga xam ne day wax yonent bi alayhi sallam waxul ay mbiram dane kii tourne naan ko ay yow noppi laa ñu déglu xutba bi nee na kooku rek indi na problème gis nga kooku la yonent bi waxal ki naan ko noppi la yonent bi waxal loolee kon yonent yàlla Moussa ca la borom bi wax ak moom daa di koy ci soir bu gudd boo demee dana ko wax ci Taaha dana ko wax ci saar yoo xam ne nii yu bëree bëri dana ko fay détaillé la gën a not ca loolee mooy borom bi xamal na ko maay sa borom léegi nag sànnil yat bi nga yor bi ko Moussa sànni yat bi ku wëlbati ko nekk jaan suñ borom yàlla ne ko Moussa demal jël jaan ji nga téye ko yàlla nga koy formé ci double formation bokk doomu aadama bi da nga war a def ndigali yàlla moo tax bi mu ne ko Moussa sa yat bi sa ndeyjoor bi lu ci nekk mu ne ko yat bi ci lay sukkandiku ci lay bàccal sama jur ci lay défendre woo dana ma jural ñeneen njëriñ borom bi ne ko bàyyi ko sànni ko Moussa sànni ko donte na njëriñam mi ngi ci mu sànni ko ci yàlla tax mu nekk jaan jaan ni yàlla bind doomu aadama ñëpp ragal jaan bi Moussa gisee jaan bi jëm ci moom mu daw mu ne ko Moussa dëppal aqbil dëppal bul tiit demal jàpp jaan ji Moussa dem jàpp jaan ji te it mbokk loolu mooy ndigalu yàlla lala ci amal njëriñ bu yàlla ne ba ko bawo piimi ba riba ba njaaloo ba sàngara ba naam am nga ci ay njëriñ mais baaxul bàyyil li nga xam ne da nga koo ragal ca sa borom yàlla ne defal ak lu métti métti defal rek dara du ci juddoo lu dul yiw bi Moussa ñëwee jàpp jaan ji rek jaan ji nekkaat yat kon léegi am na preuve ci ne kii wax ak man mooy yàlla miy dundal di rey am déet ñu ngi noonu am na preuve ci loolu borom bi nag subhanahu wa taala daa di na ko Moussa dama bëgg demal ci Firawna te Moussa moom problème am moo nekkoon su ma nibbee nan laay def ba Firawna du xam ne maa ngi ci dëkk bi si borom nag na ko boo demee demal ci firawna te xam ne moom daa bew soo demee nga wax ak moom ne ko maa la yónni ci yow mu ne ko ah yàlla man dama faa rey nit yaa ngi dégg damaa ragal su may dem ñu may rey yaa ngi dégg ah waaw yàlla bokk dimbali ma sama mbokk Haruna sama frère Haruna nga def ko moom it yonent ngiree mu dëggal ma waaye xam naa man dong bu ma waxee moom kenn du ma gëm def ko mu dëggal ma jàppale ma ngir ma mën a ànd ak moom di la jaamu ànd ak moom di la sant fa mën a toll suñ borom na ko waaw danaa wax yu sa frère Haruna moo tax dañu naan ñaan gi gën a rëy gu doomu aadama ñaanal moromam ci kaw suuf mooy ñaan gi yàlla dogaloon Musa ñaanal ko Haruna waxyu na Haruna ba Musa ñëwee ci Haruna Haruna même réaction la def yàlla innana naxaafu an yafruta alayna aw an yatgha bu ñëwee ba diis ak Haruna ah yàlla ñu ragal nañ bu ñuy dem Firawna ni ma ko xami ndax Musa moom dix ans ko fi waaye Haruna ma fa nekkoon bu ma fa demee wax ji buñ koy yëkkati mu mu rey ñu suñu borom mu ne déedéet dem leen laa taxaafa innani ma'akuma asma'u wa ara dem leen maa ngi ànd ak yéen maa ngi dégg maa ngi gis su ngeen demee nag fa quula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha bu ngeen demee yéen bu leen fa wax lu dul wax ju dal wax ju teey mën na mu fàttali ko wala mu ragal yàlla mbokk lii moo jur yonent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam dem ànd ak frère am ba ñëw ci palais Firawna bi ñëwee ci palais Firawna ah mu ne Firawna man de yàlla moo ma yónnee ci yow Firawna ne bisimilah jàmm xanaa kii saa Muusa ma mu ne ko waaw mu ne ko waaw yow alam nu rabbika fiina walida wala bista fiina min umrika sinin wa faalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin yaa ngi dégg yow maa la yar fii ngay doon gone gu ndaw ma yar la fi ay at ba nga tol ne sa baay xëy suba def fi jëf bu bon bi nga fi jëf gis nga waxu ko sax rey ba doo ko rey nit sax mu kii waaye ñi xam tuuti kii def na ko faalta faalataka lati faalta yaa ngi dégg jëf ju bono bono bon ji nga fi def tey nga ñëw naan da ñuy moral naan yàlla ma yónni yaa ngi dégg mais Moussa alayhi salaam ànd ak dal te loolu it bépp ndawu julit war na koy jéem a jàng mooy naka lay tontoo ay noonam yaa ngi dégg naka lay amee maîtrise bay mën a tontu ay noonam Moussa ne ko naam faaltuha isan li nga wax léegi maa ko def wa ana min ad-dalin waaye boobu dama réeroon nga noonu ak bëri tey ay ndaw ñu nekk fii yàlla xamal leen sunna ñuy woote ñeneen bu ñu gisee cim xanaa diw yow yaa ëmbaloon kii fi keroog ma yow de yaa doon organiser fii bal yeeg kole daraay ma yow xanaa yaa doon nangam na am ne leen na am li ngeen wax lépp dëgg la wa ana min ad-dalin booba dama réeroon léegi nag fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin dama réeroon tey nag yàlla gindi na ma te loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax looloo tax mbokk na ci bàkkaar yi gën a garaaw doomu aadama jóge ci mbon ñëw ci mbaax nga koy fàttali mbon googe di ko xase ca mbon googe loolee mbokk mbokk na ci gën a garaaw ndax suñu borom nee na mooy al-Ghafuur ar-Rahim mooy jéggale te mooy yërëmaate ab jaamam la ji ya nekkoon na ci njub yàlla indi ko ci mbaax ñëpp dañ cee war a sant yàlla loolu nag bi mu amee Firawna laaj ne Moussa ay laaj waaw Moussa nga ne yow kan kan moo la yónni mu ne ko man rabbul alamin moo ma yónni mu ne ko rabbul alamin mooy kan kuy rabbul alamin comme moom moom Firawna jàpp man maay rabbul alamin mu ne ko kan mooy rabbul alamin mu ne ko ah xanaa ki nga xam ne moo moom asamaan yi moo moom suuf yaa ngi dégg mu ne ko ah waa gars yi dégg ngeen ci li mu wax notable yi Moussa ne ko waaw mooy ki moom seen baay yi fi jiitu woon moo leen ak ña nga xam ne ni ñoo ñu mujj yëpp mu ne ko gis nga Moussa boo fi jëlee mu ne mu ne gars yi notable yi mu toogal seen kii daaw dof de kii de daaw dof bi ngi fi wut keneen ku moom ku dul man Moussa daal dina ko. sama boroom moo moom penku moo moom sow ak li ci diggante bi te gaa yi xam ngeen buur lim gën a bañ ko laal nguuram léegi nag Moussa nee na ko penku ba sow ak li ci diggante bi te mooy nguuru Firawna lépp yàllaa ko moom saa yu kon Firawna moom moo dara mu ne ko nag bis boo fi jëlee beneen yàlla bu dul man danaa la boole ci prisonniers yi minal masjunin bokk prison alu Firawna ay teen la woon teen yoo xam ni buñ la ca ba ma xëy jeex na fa ngay nekk di jeex di jeex ba dee te xam loon tudde guet noir am na benn buur boo xam ne président boo xam ne faatu na doonte ne jurit li woon ci réew yi sus ci Sénégal nee nañ camp ba mu defaroon bokkoon na ca ay cellules yu mel noonu opposants yi ñi ñu def ci dañ la jël rek tëj la bàyyi la fa nga nekk fa di seey di seey déegu metti boo xoolee it Hitler noonu la daan def ak lu bari ci juif yi juif yi bon yooyee ala kulli xaal daan la boole ci prisonniers yi mu ne ko waa firawna su rëy nag dama laa indil mbir boo xam ne mbir bu leer la nag mu ne ko indi ko bu dee am nga am nga preuve kay ca la sànni yatam ba yat ba daa di nekk la nga xam ne mooy jaan jëm nekkoon mu daa di génne loxoom ba loxo bi daa di doon loxo bu leer couleur ba weex firawna nag ne notable yi ko wër kii day ndekete fukk at yépp njabar la jàngi woon kii njabar bu béré béré ngi nii waaw léegi lan la ñuy def ak ñoom yaa ngi ni ko kay yomb na nañu dajale Égypte mboolem njabar yi fi nekk ku mën a njabar rek na ñëw da nga ko mën a toroxal ci njabar googee te jamono Moussa njabar moo notoon mi ngi noonu loolu gaa yi firaw na ne ko waaw léegi baax na léegi utal benn bis boo xam ni da ngay ñëwaat da nga fi fekk ñu la dàq njabar Moussa ne ko xam nga lu ñuy def nañ jël bis bi ñuy def bisu marché bisu luuma yaa ngi ne yoomu ziina mi nga noonu bis bu ñëpp ci daje ñu daje ca yoor yoor ñu xool ana kan mooy gañi mbokk isaar boobu ca la firaw na dem indi ay njabaram la gën a néew liñ ci wax mooy matoon nañ soixante-dix njabar bi njabar yi ñëwee Moussa waar leen da leen ay yéen njabar yi bu leen dóoral ci yàlla yàlla da leen di alag de bool leen ci mbugal njabar yi daal di toog réunion sikki sàkk dugg na leen ba mujj ne ah in haazani la saahiran yuridani ila axiri nañ dajaloo rek kii mën nañ ko to- toroxal ci njabar biñ ñëwee ñu ne waa Moussa ndax yaay sànni wala ñu ñëw jëkk sànni Moussa ni leen sànni leen suñ borom yàlla ni bi ñu sànnee seen yet ya ak seen bu seen buum ya indi nañ njabar goo xam ni tiital nañ nit ñi wastarhabuhum wa jaa'u bi sihrin azim indi nañ njabar goo xam ne nii ña fa nekkoon ñépp a tiit ay jaan yoo xam ne kenn xamul nu ñu mel ay façon rab yoo xam ne kenn mësu koo gis loolu lépp njabarkat yi borom bi mu ne saxaru ayuna noos te loolu it xamal ne mbokk njabar loolu la mal njabar est ce que mën naa jël portable bi soppi ko jaan déedéet mënu ko waaye nag mën na wax li muy wax sànni portable bi jàkk jépp gis jaan dootuñu gis portable jaan la ñuy gis gis ngeen portable moom mi ngi nekkoon ci ne portable mais jaan la ñëpp di gis moo tax borom bi ne saxaru ayuna nas dañoo njabar ba ci nit ñi indi loo xam ne nii xatta Moussa tiit na parce que Moussa li ko tiital mooy moom yettam bu ko sànnee jaan lay doon ca jaan yi mu gis fii ñoo gën a rëy jaanam gis ngeen Moussa tiit suñ borom ne ko laa taxaf innaka antal aala bul tiit yow yaay ki gën a kawe falqi ma fi alqi ma fi yaminika talqafu ma sanaw sànnil sa yet bi nga xool bi Moussa sànne yet bi rek yet bi nekk jaan ba mu nekkoon commencé ndeyjoor di wann njabar yi di wann di wann ba wann lépp taxaw ci géej bi gis ngeen lépp looy def moom bi ak caay-caay it nga mokkal ko baax na njabar yi dañoo jàngoon njabar ba géeju ci ba lépp lu bokkul ci njabar xam nañ ko moo tax biñ gisee yetu Moussa bi ñoom ñépp ñoo ànd sujud daa dina ñun day gëm nañ yàlla mi borom bindaafar yi ndax lii moom xam nañ ne du njabar gis ngeen mbokk yàlla ku mu bëgg a gindi kenn mun laa réeral yàlla yàlla boole ci ñim gindi jabar yi bi ñuy ñëw ci yoor yoor ñi ngi indaale kéefér ñi ngi indaale bëgg alal gi jóge ci firawna firawna dig leen alal yemu ci dig leen alal mu ne su ngeen gañee Moussa dana leen boole ci sama ay ministre yi ma wër minal muqarrabin ñi nga xam ne dootuma jël benn décision lu dul yéen laa ciy diisool loolee bañ gisee dëgg yàlla ubbi seen xol dëgg gu dugg seen biir ñu wan gannaaw firawna wan gannaaw alal ja wan gannaaw lépp loo xam ne nekkoon nag moom na ñun day gëm nañ ki nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf ki nga xam ne mooy borom Moussa ak Haroun ndax firawna da wax moom mooy borom asamaan ak suuf gis ngeen loolee firawna daal di jóg ci kaw tribune bi ne ah gëm ngeen ko avant may joxe ordre gis ngeen boo ko gëm day sa ci joxe ordre xam naa lii inna haza la makrun makartumuhu fi madina lii yéen yéen a ko pexe avant ngeen di ñëw xam naa ne Moussa comme moo leen dàq jabar léegi da ngeen daje ne léegi buñ demee yéen ngeen def petit njabar Moussa def grand njabar gañe leen waaye da ngeen xam xal sa ngeen xam gis ngeen loolu it bokk na ci politique boo xam ne ni ay yoonu yoon suñu borom yàlla mi ngi ñu koy nettali ci bani Israël fañ jaar ak ka nga xamee ne nii mooy firawna kàccor boobi waaye léegi nag xel sa ngeen a xam léegi li nga li am mooy yéen jabarkat yi ci yéen lay jëkke da danaa dagg seen loxo ndeyjoor danaa dagg seen ta- tànku càmmooñ daat leen ci datu tàndarma yi ngeen nekk fa di siit ba jeex su ko defee da ngeen doon misaal ñel ñu ci des njabar yi na ko eey firawna li ngay dogal dogal ko ndax say dogal ci àdduna la yem ñun ñi ngi yaakaar yàlla fay ñu ak pay ca àllaaxira te yàlla day moo gën nu muy fay yàlla moo gën nu muy ah ah, lu muy desale ak fay lépp lu yàlla di mbugale mbugalam gu sax la yow sa mbugal àdduna la yem firawna jàpp leen rey leen abdullah ibn abbas mu ne xoolal bi ñu xëyee suba njabar lañu xëyee balaa jant bee soo ñu nekk mina shuhada te loolu la ñu yeneen ci bi alayhi salaam doon bégal doomu aadama day dana jëf jëf yoo xam ne jëfi waa sawara la ba dara desul digganteem ak dee lu dul benn jéego yàlla téeréb yàlla ba jiitu ci moom yàlla wëlbati xolam mu deeyaale ngëm yàlla tabbal ko aljanna looloo tax ba ki gën a bon ci kaw suuf nga xam ko rey ni mille personnes def na lépp doo dogu mukk ne sawara la jëm yàlla rek moo xam ku nekk lan ngay mujj doonte ne ni sahab la nga xam ne mooy sahaaba ya ak taabiina ya ah da ngay gis lañ gënoon a ragal ci kaw suuf mooy mujj gu ñaaw yal na yàlla musal ñu ci ndax contraire ba la yonente yàlla bi wax nee na doomu aadama dana jëf-jëf yoo xam ne ñëpp jàpp ne kii day mi ngi ci jëfi waa aljanna dem ba dara de sukkandul dee mu jëf-jëfi waa sawara yàlla yóbbu ko sawara waaye njabari firawna ya ñoom nii lañ mujjee suñu borom yàlla jalla wa ala dogal ñu rey leen ah rey nañ leen firawna ñi muwul rey Muusa ndax ah xam na ne comme Muusa moo koy rey jóg naan da koy jéem a rey mën na indi problème donte ne dars bi ñu waroon a jël tey doon na ko proposé léegi nag Muusa alayhi salatu wasalaam dellu na kër ga notable yi dellu nañ ca palais bi ñu ne ko waaw firawna léegi nag nooy def ak Moussa da nga koy bàyyi moo xëytam ñu continuer di indi ak yàq ci kaw suuf di la weddi mun waa nañ continuer lañ doon def nañ nañ nañ rey continuer rey doom doomi góor yi rek bàyyi doomi jigéen ya waa bani israil ñëw ci Moussa ne ko ah Moussa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana ñun avant ngay ñëw lor yi taroon na ñu jàpp ne boo ñëwee mu teggee ko lor yi continuer ca mbokk ñooy xeet bi gënoon ci kaw suuf xeet bi gënoon ci kaw suuf jamono jëmee bani israil suñu borom teg leen nattub ñuy rey seen doom yu góor di yóbbu seen doom yu jigéen chantier mënuñu ci dara bala un min rabbikum azim loolu it muy wàññi ne léeg-léeg gis ay julit ca Syrie ay julit ca Irak ay julit ca Libye ay julit ca feneen di dund ay coono occidentaux yi ak seen i vallées yi nga xam ne ñoo leen fa nekkal loolee mbokk it léeg-léeg yàlla nattoo ko ay jaamam yàlla na yàlla may ñu aafiya Moussa alayhi salatu wasalaam ne leen ay yéen saw xeet mu ñu leen suuf bi suuf si yàlla la moo koy donnaloo ku ko neex muj bu rafet ñi ragal yàlla ñoo koy am léelu mooy mbir bi nga xamee ne nii dogu na ci te mooy suñu borom yàlla fokk dana mës a dimbali ñu ragal yàlla loolu nag mbokk julit insha allah yeneen tafsir yi dana ci indi leeral yu gën a màgg jàpp naa ni heure bi lañ doon arrêté